Euh, mbokku téléspectateurs yi nag tey ñu ngi toogaat ak ki nga xam ne moo di euh, le PDG de Xewal TV Serigne bas Bamba Xewal ñi di ko nuyuwaat ci disponibilité bi nga xam ne saa suñ ko yitee itam mu yombal ñu li nu mel yaakaar naa ne moom moom la gaa ñëpp di wër fu mu toll nii waaye tam hmm. moom saa su ne euh, suñ ko yitee itam mu defal ñu li nga xamante rek benn benn yombute ci gise bi Serigne Bass Bamba Xewal ñu ngi lay nuyu. waa jërëjëf Serigne Mountakha di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñuy seetaan hmm. jàmm ji info xéewal TV jàmm ak moom. ku am jàmm da ngay da ngay bëgg xéewal ku am xéewal da ngay bëgg jàmm. tawarkalla kon jàmm ji xéewal moom bu ko nit ñi di seetaan moom. Mhm. jàmm ak xéewal rek lañ ci war a gis. tawarkalla kon daal ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant. alhamdulilah euh, di baalu àq tey baal di ñaan yàlla yàlla yàlla boole jëggal. macha allah di nuyu nag suñu soppi yëpp. ñu ngi leen di nuyu gëj nañ ñoo gis mais. Mhm. jamono day toll foofu noppi. nekk naa TikTok bi su ma génnee vidéo. Mhm. balaa bët a set ñaar fukki junni nit seetaan ko di ci commentaire di wax lu baax. nga leen ci yedd di ci wax li nga gëm. mais. mun ñoo dëkk loolu ñu duñu ay tiktokers. waaw ay liggéeykat lañu. tubarkalla. <laughs> moo tax ñu arrêté woon ko. macha allah mais dinañ ñëwaat ndax gars yi ñu ngi koy laaj rek. ñu ngi koy laaj. waaw ndax ubbi naa sax benn groupe ndeysaan. macha allah ndeysaan gëj naa cee dugg maa ngi nuyu ñëpp daal. tubarkalla waaye daal xam ne daal. bu nekk ci liggéey nekk liggéey bu nekk ci wax dañuy nekk ci wax. Mhm. Ah. tabarkàlla jërëjëf. jërëjëf sëñ Bass Bamba Xewal sëñ Bass. Mhm. Euh, fi ma jëmee fi ma jëm directement sañ Bass. Mhm. Euh, mu mel ni rek ñoo ngi waajal li nga xamante ni nag euh, moo di gàmmu gi. muy bunt bi nga xamante ni nag muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sëñ Bass nañ la gis itam saa su ne waxtu bi daan ko waajal. ak soxna Aïda Diallo ca diwaanu Mbour. di ko waajal. mais li jaaxalaat gaa ñi ba léegi sa sortie bi nga mujjee def sortie Euh, sëñ Bas ginnaaw si màggal tegu na fi. Mm. gisuñu la ci màggal gi. Mm. sëñ Bas gàmmu gi. Mm. ndax fa ngay gàmmu wala fay gàmmu. waaw wax naa la léegi benn mbokk taal bi Tijaan. waaw moo yóbbu fële Fès Maroc. pour ñu dem gàmmoo foofu. daggal na ma billet dag billet baa ngi fii. Mm-hmm. defal na ma lépp mag suñu mbokku Tijaan boobu. waaw ñooy ànd dem. d'accord waaye nga soxnaay de la ma la ci wax rek moo ci nekk kooku yaay la. mais gi dañ la gisul si màggal gi. dafa nàkk rek kooku yaay la. Euh, màggal gi. waaw nag bi ma jox mënoo ko am huit cent mille nag bi ma jox mënoo ko am huit cent mille. d'accord xam nga tabaski nee naa la 2017 ba léegi xaram lay tabaski kooku yaay la kooku man dama koo ñëwee muy soxna Aïda Saliou Thioune. dama koo ñëwee. ndax jëf ju baax ji muy def nee la ajjuma boo gis dina togg lu ëpp fukki million amul jëlal lu man ñeenti at ak ñu koy def te wax naa leen na chaque ajjuma mën boo ko dëkkee suukar lay te ak meew moom nag ñam yi neex lay togg di ko jox jaamu yàlla yi moo tax ba ku ba ñu commencé wax ci moom ba léegi. waaw kenn mësul wax ci moom ba am ci moom ndam ndax lu baax li muy def xam nga Mountakha Sénégal xam nga lu ko yàq. Mm-hmm. saa boo waxee ci nit lu baax ñu ne da koo ger yàlla bu mu nekk nag ko am teraanga. Ah, suñu bas nga léegi xaalis yow. déglu rek mu nekk am teraanga. waaw su ma lu mat presque un an et demi wala waaw soo nee ne gisuma gisuma mais looloo jaaxal ñëpp. waaw pour ah, waaw sëñ soxna Aida liggéey bi mu yor nii. mais màggal gi màggal gi. waaw dafa ndànk rek liggéey bi mu yor nii. waaw est-ce que mën naa toog di di gisee ku ne. waaye da nga spécial Diomaye Faye nii Diomaye Faye am na xam ñoom ñoom ñoom ak moom ñoo doon toog naan ataaya. mais boobu loolu bokkul sax ah, dafa nag rek ñoo doon toog naan ataaya. yow tamit loolu bokkul li nga bëgg a comparé yow tam. daa daa kaam ah kaam la benn mbir de. ah soxna Aida moo ëpp Diomaye Faye fuuf maqaam. nga teg ko fan. moo ko moo ko naka liggéey. ci ci yoonu yàlla bii. mais waxuñu loolu. dama ne ci yoonu yàlla bii li ci soxna ay di def Diomaye Faye defu ko. mais sëñ Bassirou li nga bëgg a comparer moom mënta ne. non ko mënta ne sax ñoom ñaar. non déedéet non duñu benn. parce que parce que fi nga jëm ak fi mu la bëgg a dugal. non ñoom ñaar duñu benn yaa xam nga li nga wax moo tax ma dugal la. non c'est que xam nga dama ne tëkkale soxna ay di ak Diomaye Faye. non defal nak parce que yow. déglu rek sa problème yow sa problème. Euh, yow ku la laal ci point pour bëgg faa génn da ngay bëgg indi wax boo xam ni. déedéet rek dara déedéet dama ne Diomaye Faye dama la jox exemple ne la. waaw Diomaye daan toog naan ni ataaya fii de mënatu ko soxna Aida mënul toog di làng waxtaan ak liggéey bu rëy bii sëñ Béthio jox ko lii ko sëñ Béthio jox dafa diis te bi mu ko koy jox bu doon diis léegi mi ngi sant dama lay wax ne la xam nga Sénégal lan la ñu xamul. kon yow léegi lan mooy sa rôle. luy sama rôle. waaw mooy ñaanal ko jàppale ko. mais liggéey bii sëñ Béthio dégg mais mais mu di la gis. waaye bu la mooy gis. man may liggéey sama liggéey. Eh, mais mais attends mais yow daanaka gis nga ko jàppale. waaw non nag ba tey foo ma nekkoon tey soxla ay la kaay wax la benn mbir xam nga jamono bi dafa doon wax rek. waaw tey bu soxloon sama bakkan bii maanaam sama bakkan man ma dee moom mu dund man ma dee jox ko sama bakkan. <laughs> mais sëñ Bas ah yow yaa ngi ma am loo may bëgg a fàttali ko de fii nga taxaw. waaw sëñ Bas am na jëmm ji fi taxawoon ay temps. <laughs> Hmm. sëñ Saliou rek lay nooyee. waaw. nga naan yow nit ki nga xam ne yow koo dem rek jox ko ne ko jox naa la sama bakkan bi baa yow loolu nga a def waaw wax man tudduma tur de <laughs> tudduma tur Omaro moo yoroon dama nga taxaw classe dal ci kawam waaw déglu rek ay bakkanam la ko man benn bakkan laa yor dama ne la mais sañ Bass yow yaa ngi yaakaar réew déglu dama ne la sama bakkan bii bu ko soxna Aïda Diall Salim Thioune soxla woon tey mais kii sañ Bass mi nga xam moom mu déglu rek moom mu dund man ma dee man ma jox ko sama bakkan billahi wallahi taalaay da may laaj lu tax loolu. ah mais mais yow la ñuy déglu Sénégal. mais parce que li nga wax nii moom daf ñu commencé daf ñu daf ñu dépassé. waaw yow lay dépassé. xam nga loolu dañ lay déglu dafa nekk rek dafa am njëriñ moom moo ëpp njëriñ. yow sëñ Bas. soxna Aïda Saliou Thioune moom moo ëpp njëriñ wax naa la deux ans yi nii gisuma gisuma ko tey laa gën a bëgg. mais yéen a ngi déggante. dama ne déedéet déggante wu ma ak moom. daa ma ne gisuma gisuma. non sëñ Bass nag lii lii moom boo koy wax askan wi boo koy wax réew mi xam nga tam réew mi ñu ci ñu xelu waaw mais duñu nangu comme xam am mbooloo muy dem ko Soxna Aida waaw daa mbooloo moo xam ne dañoo bëgg Soxna Aida waaw am mbooloo moo xam ne sëñ Béthio moo leen booleeg am mbooloo moo xam ne ay dunguru lañu waaw ay dunguru xa xanaa la yow la maanaam mbooloo moomu suñ fay dem waaw dañuy yaakaar luñ fa jëlee yaa ngi dégg. Mm-hmm. maanaam dañuy xaar ba cant gi jeex ñu toog fa ba mu naaj ba jant bi génn ngir lan di xaar ku leen yi man na kenn yeewuma ba ma yeewi man mi def yeewuma. xanaa yow xanaa yow da nga. dama ne xanaa da nga fa mos a dem yeewi. dama ne ba mu dama ne saa bu ma fa demee. waaw même su ma ñibbee su ma demee ba yeewu fekk xaalis sama portable te man suba mosuma faa fekk benn yoon astafurlah te dafa taw. yaakaar naa dafa taw tama soloon palmaan mënumaa génn mais fu min fu deux heures du matin une heure taal naa sama moto ñibbi su may ñibbi du ma tàggoo kenn du ma yëg mais mais léegi d'accord sëñ Bass euh, ci ah. ñu xelu kuy déglu hmm. euh, dafa mel ni dëgg la yàgg moom hmm. euh, xëy na ak relation bi ngeen am ak nu mu yàggee hmm. naa boo leen toogee waxuma la weer sax weer sax ëpp na waaye léegi léegi mu bëgg a def ba ni may déggee yow xam nga yow relation ngay wax xam nga ban relation ngay wax ah. lu ñuy féddaliwaat féddaliwaat féddali mais non yaa ngi dégg xam nga loo xam ne da ngay toog boobu yaa ngi dem féddili ko mais xanaa léeg-léeg nga jékki-jékki do dem seeti ma rek dëgg ma wax féddili baaxul mais lu tax doo dem seet jékki-jékki dem yow lu toll ni màggal gi jot dem seeti ko dama ne gàmmu gi jot nga ne dañ laa daggal billet dama ne yow dafa màggal Touba waaw murid fu mu nekk Touba la ah d'accord man tey su ma amul loolu ngànt yow gàmmu gi fa nga yeggoon gàmmoo n'est-ce pas gàmmu falaay gàmmoo daaw falaa gàmmoo falaa màggale daaw mais lu la tere gàmmu ren ku màgg waaw màgg dama ne mbokk taalibe. waaw moo ma dagal billet bu seer. d'accord billet boo xam ne maanaam ëpp na un million. si <coughs> li mu fere ci man ci dem bi. murid la ab tijaan su ma invité. damay dem. loolu ñu ñëw bokk ñu ñaar mais mais d'accord d'accord mais gis man problème bi mooy. xam nga ba mm. léegi. Mm. askan wi ñiy toog di xelu te yor. xel ñiy ah. toog di déglu mooy. Ah. lu po expliqué nga ko. waaw ah. yaay la yaay la. yaay la nga ko wax. waaw dem nga sax ba ne yow sa bakkan bi ko soxla woon tey tey. tey ma jox ko Euh, mais nga mën a toog diir bi yëpp. waaw tegantewu leen ba téléphone. amul waaw dafa waaw daa yàq suñu daa yàq suñu ànd. mais waxuñu da koo yàq. déedéet mais ñi xelu. ma ne dama ne géej naa koo gis. mais du yoon est-ce que loolu yoon rek géej naa koo gis. si ci Zahir mais maa ngi koy gis si baatin. ah mais mais moom mi may gis si baatin. mais mais mais mais. ndax màggal gii passé lii. waaw màggal gii passé. waaw ma ne nag bi ma jox ëpp na huit cent Ba nag bi ñëw na. na su naaj bi dafa ñëw ma ray ko da nga mën a déglu xam nga yow man. xam nga ah, man cofeel gi nga am ci moom. non non mën nga ko rafetal kaay ma la benn mbir. waaw même sama yaay. waaw du ma ko fenal. non ne def na lii wala deful lii. mais xam nga lan la sëñ Bass toujours. Mhm. ci communication dañuy gis ni toujours day apaiser maanaam. dama xam mun a xew mais day apaiser. barki Cheikh Salihou Mbacké mi ma yaakaar. yàlla ma gisee ak moom. waaw nag wu rëy la ma jox. d' accord ma rey ko. waaw séddale ko waa koñ bi yëpp. d' accord benn mbuus moo fanaan sama kër ak samay mbokk ñu ngi may dégg. d'accord ñoom laa ko séddale dama ne waxuma sax loolu. waaw dama ne. koo xam ne bala koo ñaan mu may la. waaw da nga koy rusa ñaan te soxna Aida maanaam da nga ko bëgg a jàppale ci liggéey bi maa ngi koy jàppale sax ci liggéey bi donte dina jafe tuuti naa ci. yaa ngi koy jàppale. waaw donte tuuti naa ci. mais ñàkk gisee day jaaxal ñëpp. déedéet ak dégg xam nga gisee soo gisee adduna bi nii. gisee la ne xol yu gisee moo gën jëmm yu gisee. mais téléphone yi léegi fu mu ne. dama ne xam nga lu gën a bon ci àdduna. waaw kilifa dafa am lu ñuy ànd ak moom. muy lan. da nga koy bàyyeeg sa bopp bàyyi ko boppam. kon sa kilifa la. waaw sama kilifa pire. d'accord d'accord Soxna Aïda Diallo sama kilifa la. li gars yi ba dégg sax sama sëriñ la man. ah waaw. kon tey boobu yokkaat nga ko ci. dama ne yokk ma ne wax naa ko gars teg nañ ko ci màggal gi vidéo bu ma defoon depuis daaw am na mbàkk yu bàkk yu bëri woo nañ ma ñu waxtaan ci ne samay xarit loolu gis nga man dama lay wax benn mbir li ma gis ci soxna Aïda Saliou Thioune mii mbindeef mënul tax ma bakko kenn mënul tax kenn. mais nee la su soxla woon sama bakkan bii. waaw ma yokk ma jël sama fan yokkal ko ci ay fanam mu gën a dund ndax moo ma ëpp njëriñ. d'accord mais dama lay benn mbir. waaw sama deret jii dignité personnalité. moo ciy daw du ma dunguru kenn duma ma sibooru kenn màggal gi li tax deewuma. waaw kay d'accord màggal gi lan moo tax deewuma. waaw question daaw fa laa màggale li tax deewuma damaa tawatoon màggal gi tawat moo tax deewuma fa. mais waroon ngaa woote. déedéet am na ñu ma woo. mais da nga yëgle déedéet am na ñoo xam ne bu ma bu ma soxlaa foofu dara. waaw ñoom laay woo. mais lu tax intermédiaire bi. déedéet intermédiaire mooy. amee lan moo tax ministre des finances. ministre de l'intérieur mais déet dafal naa. dafal rek lan moo andi ministre des ministre de l'intérieur. non non c'est que sëñ Bass xam nga gars ah? tax ñu ñu ci yow sa côté communication. Ah. dañ lay du ci ci ruq nga bëgg indiwaat feneen bëgg. waaw léegi ma laaj benn mbir. mais quand même. ma laaj benn mbir mais mënoo. yow tey est-ce que mën ngaa tëb rek woo woo kii président Diomaye Faye wala seeti ko. mais bokkul yow c'est que. kii yëpp ma xaama Diomaye Faye déggu ma la. mais defal nànk mais sëñ. kii du moroomu Diomaye non sëñ ba xam nga li boo koy wax yi <coughs> euh, li boo koy wax wi moom dinañ. <coughs> non askan wi dinañ la comprendre quoi xam nga hmm. maanaam euh, yëg-yëg. ak euh, bëgg cafel dafa dafa fo quoi ndeysaan xaaral ma ñëw rek xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw parce que bu ñuy wax gars yi dañ lay comprendre mais sëñ Bas hmm. fekkee ne mënoo ko gën ngeen a gisee non damay joxe rek waaw téléphone yaa ngi fii waaw tey boo ko yittee woon xëy na même bu fekkee sax da ngay jaar ci intermédiaire amul problème. waaw mais sëñ Bass xanaa da nga woote ci intermédiaire ba koo jot joxuñu la ko. dama ko woon ci dara moom laa bàyyi sama lépp moom lu mu gis man eh. dama ne ku bëri baati na ngi noonu. na ngeen koy xoolee jigéen rek xam nga man international la wax maanaam Sénégal gii kuy ñaan wala ngay dugg ci mbirum ji nekk ay faj yeeg nangam nangam ah góobo fii ah bon fajkat waaye sëñ bi te nga suukar. dama ne ñoom du ma suukar. dafa nang da nga ko suukar parce que dama ne ñii dugg ci mbirum rabak ay jëndee ay non non ñenn ñi rek amul ñenn ñi. dama lay wax benn mbir tey tey c'est wax te beneen sëñ Bass encore heure bu ma xëyee di gis beneen sëñ <laughs> a dégg. laaj rek yow question. boo xam ne nii nga ko la wax waaw man Serigne Saliou Mbacké dimbali waaw yàlla damaa dimbali ma am ñaanu waajur. d'accord sama papa ba ma naan million dina mel ni téeméer ci yow boobu amul lu ma soxla. d'accord te la ma waxoon digg na tey. d'accord xam ba mu ma defal la neex. nit mënalu la dara boobu mënu ma am dara boobu xaw ma dara mais dama lay expliquer benn affaire. waaw soxna Aïda Saliou Thioune. waaw li mu yor fan la jóge ci Serigne Béthio Serigne Béthio li mu yor fu mu jóge ci Serigne Saliou. Serigne Béthio dénk soxna Aida ne ko teel ma sama njaboot teel ma samay taalibe mu téye ko di ko doxal yàlla def ñu duggante man ak moom waaw bi duggantee man ak moom xam nga mu taxaa saa boo demee ci kër nit waaw boo ñibbi mu teral la dama ne boo dee goro da fa gëj ndax ku la teral tëral la dëgg dégg nee naa laal soxlawu ma numéro téléphone am soxlawu ma gis ko soxlawu ma seeti ko yaa ngi mhm. ndax liggéey bi muy liggéey nii dama ciy jàpp di ko ñaanal yàlla pour moo gën koo mën ndax nee naa la dama joxe benn misaal firaw na moo gën a bon ci àdduna bi mais firaw na bi ko Moussa songee firaw na daa dàq Moussa bi yàlla ne euh, Moussa bi ma ne yow ko bon kii ma song ko nga may ko kàttan gii mu ne ko mënuloo ko dara mhm. ndax firaw na bala moo lekk yaayam daa lekk maanaam taal waa kër gi ñëppay lekk muy door lekk ki desetu nit ñi lay door a commencé xoola ni mu bone waa kii nekk julit yaayam nekk julit baayam nekk julit borom këram nekk julit muy togg ñoom sax ajuma di ko jox ay junni ju ay ay millions yi musul arrière mus ñu ko fomm lu xew mu toom di ko jar ñan prison yi hôpital yi mm-hmm. maanaam ndongo daara yi mm-hmm. di jën ay jasneer di ko jox ndongo daara yi di dimbale ay nit ci accident yi ci ci nitati ci ordonnance mm-hmm. ci dépense di leer waaw kooku nag bu fekkee mi ngi def loolu da ko koy yéene. d'accord man soxna li muy def nii dama ko koo yéene. d'accord te it moo ma ëpp njëriñ téeméeri junni yoon. allah kon man du ma topp nit. d'accord ñaata milliardaire laa xam ñaata doom président laa xam du ñu dégg sama numéro du ma la nëbb Guinée équatoriale. waaw doomu président bi ñëw na fii def sama kër dix-neuf jours ñibbi. ñu bëgg maa indi jet privé pour ma dem Guinée équatoriale ma bañ. Eh, déw ma. yow nga bañ. billaahi ma bañ. d'accord déw ma. d'accord xam nga lan mooy mbir mi. waaw man xaalis. waaw wërsëg. waaw ki ko yor moom laay neexal tey neexal ba sax lu bari maanaam lu baax ci man defal ma ko lu bon ci man bu mu ñëw. ok ok yaa dégg. ok mais li ma la bëgg a xamal mooy soxna Aida. waaw ni mu nu ma ko téye. waaw téye na ma lu ko raw. d' accord yaa ngi dégg. kon leer na moo tax nag comme moom ma ëpp njëriñ. waaw ma koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wër. waaw di ko ñaanal jàmm ak salaam. tabarkàlla yaa ngi dégg. nekk ci bu ma gisee. mu ngi sama xol bii bu ma gisul mi ngi sama xol bii. macha allah man maa dul lambar lambar ci yenn yenn yi. d' accord te it boo gisee daw ma ci màggal gi. dama tawatoon. kon leer na ba ki ma doon jox nag bi sax bi ma wooyee. dama ne ko man de li tax gisuleen ma sax. dama xa dama maanaam fan yëpp dama tawat. macha allah ki ma doon jox nag bi. kon leer na muy waaw. kon leer na bëgguma sax toujours. d' accord waaw mbokku téléspectateurs yi. Mm-hmm. Euh, muy bunt boobu nga xam ne tey euh, sëñ bas Bamba Xéwal génnaat na foo xam ni. dëgg yàlla euh, gaa ñi moom xam naa ne askan wi moom dinañ ne waxati na waxati na nag sëñ bas waxati na. <laughs> jàmm ji info.